Cheikh Sow Neex Sow ci waxtaan bi ma bàyyi sama naataango Abdoulaye mu nuyoo. jërëjëf Arona ginnaaw bu la jaajëfalee nuyoo bu solo boobu xam ne def nga ndax xam naa suñu na ko ci écran yi ànd ak koo xam ne ñi def ñu ngi loolu lépp dina leer mooy kan ak jaar tax yëpp incha allah bi dinañ ci dikk solo yàlla Cheikh ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di fay euh, di nuyu aussi tamit téléspectateurs yi di nuyu tamit euh, ñi seetaan site bi di nuyu ñëpp daal bàyyiwuñu kenn di baalu àq ñëpp aussi tamit di baalu àq ñëpp. Ahmed Chérif. ok ñu ngi lay dalal. merci merci vraiment. xanaa ne naan asalaamaaleykum rek njëkk di ko boole ñëpp. ñuy nuyu mbokk yi nga xamante ne ne ñoom ñëpp ñoom lañ seqal table bi. merci xam naa incha allah dinañ dugg ak yow. ci lan moo war a nekk sa liggéey en tant que directeur technique bu. <laughs> Euh, marketing bu euh, entreprise Neex Soow dañ ci dugg ak yow Cheikh. oui abord kan mooy Cheikh Soow Neex Soow ci tënk. waaw euh, Cheikh saw euh, benn jeune la boo xamante nii mu ngi nekk Bawol euh, nekk ci Touba mm. Cheikh Sow nag moom mooy tur bi mais turu entreprise bi mooy Cheikh saw Neex saw bu fekkee tey dama la doon wax Cheikh Sow man maa ngi juddoo dëkk bu naa Rumde côté Gët Ardo mais maa ngi yaroo Touba mais maa ngi jàngee Mbour ñëw Touba nag ubbi fi benn entreprise bu ñu naan Cheikh Sow Neex Sow mm. bi nag ba muy départ ci ndaw la départ ci taabal la déparé ci benn paanu sow la déparé ci benn siwo sow la déparé hmm. mais tey alhamdulilah macha allah mu ngi mu ngi nekk entreprise boo xamante ne nii euh, am na plus de soixante di personnes yoo xamante ne employé ñuy liggéey ci biir euh, entreprise Cheikh Sow Nekh Sow hmm. Cheikh Sow Nekh Sow nag euh, ay banqaasam bari na ci Sénégal am na ci région yëpp daanaka booy xool am na Diourbel am na Mbour am na Thiès am na Dakar Euh, am na Kaolack. macha allah daal euh, fu bëri ubbi nañ fa biir Touba moom am nañ fa ay points de vente yu bëree bëri marché Ocass am nañ fa trois Darou Khoudoss extra extra bëri na daal. entreprise bi euh, kañ la sasu. waaw entreprise bi maanaam tur bi moom yàgg na mais entreprise bi dëgg dëgg dëgg mu ngi sosu 2002.

ci la marché Ocass commencé mais entreprise bi mu ngi commencé 2002. Cheikh gis nga hmm. xëy ci entreprise bi. maanaam ñooñu par weer bi leen hmm, ñi nga xamante ni dañ doon jaay pourcentage la woon mooy ñi doon wër si marché bi ñooy ne pourcentage bi mais actuellement ñi nga xamante ni ñoo nekk si biir place yi par mois la ñuy fayeeku chaque weer ñoom dañuy mos dara. dans les normes est-ce que normes yi nga xam ne tey des gens entreprise Euh, war na ko war na ko doxe est-ce que yow yooyu yaa ngi ci respecté nga norme non yaa ngi si parce que bu dul woon loolu ba tey kon gars yi galgal nañu galgal nañu mboot teg si suuf parce que bu fekkee waru hygiène macha allah suñu am nañu ay kër yoo xamante ni illégal la mu ngi fa bu fekkente ni wàllu maanaam lépp loo xamante ni ne lu lu lu yoon di laaj am nañ ko macha allah mu ngi si place euh, Ahmed euh, Chadibou Chérif mhm. directeur marketing bu Section Nersoow mhm. entreprise Nersoow mhm. lan moy ce rôle ci biir entreprise bi. xam nga buñ né marketing. Hmm. suñu xel yëpp day nekk ci commercialisation. Hmm. muy vrai sens su terme bi. Hmm. te bu ñu waxee ci commercialisation. suñu xel day dem ci li ngay jaay d'abord. parce que li lay njëkk wax ci ci ci marketing. marketing mix mooy nga appliquer 4P muy prix moy produit moy place. Mhm. ak aussi gis nga yoy noonu bo taxawé ci ñent yoy noonu. Mhm. leneen bi li ci ko rek moy nga xam exactement. Mhm. li nga xamante ne koy jaay qualité bi ak valeur bi. parce que ñun xam nañ ne ñun dara soxaluñ. wala dara yëkkati wuñ lu dul neex soow te neexaay saa yu ñu ko déggee li ci ëpp nit ñi baaxaay bi day fekk romb nañ foofu ba pare donc ci loolu noonu nag ñun xam nga lu baax bëgg dox ci lu baax ak bëgg xam ci lu baax nga xam ne moom aussi jeune la te liggéeykat la képp kuy liggéey rek moom la soxla te jàpp naa ne kenn ku nekk xam na soow bu yomb mu nekk ci biir Cheikh Sow Noor Sow mais est-ce que yombaay boobu lu naturel la est-ce que amul ay xeeti produit ay nangam ay doom ay et yoo xam moom ngeen di def ci biir ba tax yombaay boobu am ka même. li tax ma ne la produit bi am ci solo mooy ci 4P yi xam nga produit lu tax mu am solo. Mm. mooy nit ñi booy jaay lu baax te yàgg. rek bu ci kanamee wolof njaay nee na lu yàgg dëgg la mm. ndax yàgg nañu dégg seex sow neex sow mosuñoo dégg ko ci feebar mm. mosuñoo dégg ko ci am problème mosuñoo gis koo xamante ne am na ay intoxication ci suñuy produit yu ñu lay jaay mm. donc vraiment amuñu ci benn produit boo xamante ne ne dañ la ko ci raxal soow la meew la ndox la ñaar yooyu nag foog naa ne bu àndee yëngal dëkk suukar naan rek moom moo ci tegu ah marketing bi nga nekk nii ndax loo jàng la wala da nga xëy ci dëgg la lu la parce que sama formation. tey bo xeyé maa ngi euh, peut-être sixième année universitaire c'est sama mm-hmm. master soutenance mm-hmm. donc vraiment ci côté management des entreprises dama jàngé jaaree léa mooy langue étrangère appliquée te ñëpp xam ne affaire la ñuy def mm-hmm. donc ñu jógee foofu kon lépp loo xamante ne na du question lu ñuy làmbatu mais loo xamante ne dañ ñu ko sol ba mu jeex ñu bëgg koo sotti nit ñi jëriñoo ko loolu kese lay doon mais yow jàng ba am say diplôme amoo lenn looy def lu dul nga naan damay def entre marketing entreprise ay neex soow bon vraiment xam nga lépp loo gis. mais loolu dafa bizarre quoi. xam xam nga lan moo ko waral. oui moom mooy chaque jour dañ lim la njëkk expliqué ci domaine boobu. mooy lan mooy xam nga tey bu fekkente ne ne yaa ngi liggéey ak doomu aadama wala yaa ngi gis nit ki muy def dara mhm. dafa neex nga def li anglais yi naan from zero to hero mhm. mooy nga liggéey commencé ko ci dara tabax ko ba mu rafet mhm. gis nga képp ku commencé wut ci lu tuuti nga bëgg ñëw rek nekk si donkaasi gi wala ci noflaay bi li ngay wëlbati ko di nekk chaque jour moom mooy koo xam ne defoo fa dara da ngay toppee rek ba heure bu leen neex léegi nag xam nga lan mooy njëriñu liggéey moom mooy nga wane sa expertise ak sa compétence ci loo fekkul dara nga fonde ko tabax ko ba ëllëg doomu aadama yëpp mën cee jëriñu ndax yàgg nit ñoo xamante ne dañuy jokkoo ak Cheikh Sow mu nekk suñu frère xam nga kon foofu la entreprise bi commencé mm. parce que nekkatul entreprise famille la famille nag du ay mbokk pëlëg bii déedéet mm. famille moom mooy képp koo xamante ne rek client Cheikh Sow nga sax famille nga ndax tey boo fa ñëwee ñu ngi kaf ak yow ñu ngi reetaan ak yow mm-hmm. boo amee lu la naqari ñu seet si la boo amee lu la jot ñu ñëw jàppale la si kon loolu noonu famille la ñun ñëpp ci lañ bokk mm. ba tax soow bi nit ñi meew ñu ñàmm di ko way rek yéen la dëgg la xam nga jamono d'abord ñaar yëpp dafa bokk mooy lan mooy doomu aadama il faut ngay innover tubaab nee na honte à celui qui ne peut pas faire son père mooy ki nga xamante ne mënta def li raw li baayam def kooku defu fi dara te ñun dañoo fekk dara ñu bëgg a def dara kon boo bëggee def dara il faut nga def dara balaa dara dafa nekk moom mu commencé di liggéey fii ñun ñu jàpp ji fële ñun ñu commencé rek ñu occupé dem ko dem ñëw fekk ko moom ñu nekk ci xam nga ñaari xam bu àndee rek day solo kër suñu seetloo seen dafa occupé média macha hmm. wax ni média ci muy defaree noonu lay yàqe tax seex daw rek wuti média maanaam dafa mbir mi média la nekk wala est-ce que gisoon nii dafa teeloon bu mu def loolu xam nga dañoo toll jamono joo xamante ne ne fu mu toll nii boo bëggee moyen wala vecteur de communication il faut nga làmb média yi te bu ñu tuddee marketing suñu xel yëpp dem ci marketing yamut ci toog place ba wala yore paan ba dafa neex boo jaayee ba ñëpp xam ne li ngay jaay dafa baax wala nga xam ne li ngay jaay dafa baax nga dem wóolu may kóolute sa clientèle ñoom it ñu toog seetaan ne yow mi ku am fit nga ci li ngay def ndax nee nañ kuy kuy nëbbatu du ne maa ngi nii fàng kon gis nga fan googu noonu ñu def pour woon nit ñi ne muy ya état muy lépp ñun suñ lépp dafa pare suñ lépp dafa mat kon amu ci lenn loo xamante ne dinañ ko ci ragal te ku ko weddi bu subaa xëy seen nga ñam suñ soow xam ngeen xam lan la entreprise seex soow neex soow dafa amul doole wala qu'est-ce qu'il y a parce que duñu gis yenn ay neex soow ci yenn épicerie yenn place yi place publique le, eh, ci yenn eh, select wala nangam ndax da ngeen néew doole est ce que néewuloon doole ci yooyu ñu ngi ci ay projet yoo xamante ne ni dañu bëgg mu waxal boppam xam nga bu waxalee boppam ci lay dàq. Mhm. xam nga topp ci naan dañuy dañuy dañuy li gën moom mooy nga def nit ñi naan mu ngi nii. est-ce que nekkul da ngeen di bëlëfi nit ñi def ay bataille psychologique xeet yooyu. bon ñun ragaluñ xam nga lan moo tax ragaluñ. Hmm. lépp loo gis dañ ko amal dat te ñun sax xamuñ lan moo la ko xalaat loo. Hmm. kon yàlla na fekk ne yàlla dafa def ne dafa sottee rek. point de vente yi hmm. gis nañ ne ñu baree bari

nga jël nit xamut mënul nga jël ko mu produire benn soow boo xam ne c'est pas identique à Cheikh Sow Neex Sow mm. nga jël soow boobu ko produire keneen mos mm. muy loo xamante ne nag du doon original loolu kese la et consommable sans danger kese la. ci côté ñi nga xam ne aussi tamit ñi ngi pirate. Uh-huh. pirateur yi nga xam ñi ngi pirate Cheikh Sow Neex Sow. loolu lan moo ci war nekk seen ay matukaay. Uh-huh. dëgg la xam naa ne moom sax xam na ne. peut-être fiñ tollu ni ci domaine bobu non mm-hmm. motoka yi nga xamné dañ ko jël mom da ci street mo mm-hmm. ngi ni moy lan cheikh mm-hmm. sow neex sow buñ la doon jox ngay wayal fek fukki at do produire même sow ka cheikh sow neex sow cheikh oui fi may moy cherif ah, ahmed euh, ahmed shadibou cherif dugg gi mu dugg ci ci entreprise neex sow yor marketing bege ya ci aju ndax gis nga sa bop ci lolu waaw d'abord euh, dama ñëwaat tout rek arrière ci li nga wax ne Euh, pour soow mi ndax suñ soow suñ guu soow dafay bokk ak yeneen guu soow non ñu bokk li tax ñu bokk yeneen jàkkat soow yi ñoom seen meew fii lañ koy jëndee Sénégal bàyyil ko yaa ngi dégg man nag sama meew man maa koy jëgaane su ma demee man maa leen naan qualité meew bii laa bëgg meew dafa bëri ay façon ah, dugal select bi di nga fa fekk meew bu jar mille deux cent mu nekk quarante grammes nga fekk euh, buy jar cent mu nekk 40 gramme nga fekk fa buy jar 2000 francs mu nekk 40 grammes mais ñoo tolloo yëpp 40 grammes mais prix yi tolloowul tàpp yi tolloowul matière yi bokkul. ba pare nag bëgg nekk ay premiers sénégalais yu produire lait boobu noonu. Mm-hmm. mu nekk ci suñu bitim réew ah, mi naturel boo xam ne. ñun ñooy produire même lait bi ñu doon jéggaani ndax li liñ ci gis. ñu ne ñun pourquoi pas koy produire suñu bopp. seex day jaay soow mu forox. soow mi day fanaan am ñetti fan ñeenti fan mu def ko ci frigo yi mu forox. est-ce que loolu dañ koy dëggal am na wala amut. xam nga lu ma ci jaaxal man guddi gi bu ma jaaree place ba bu ma ne ko soow soow tuuti laa bëgg da naan ma dara amu fi waaw ah, kon loolu ay rumeur la gis nga léegi lañ kon da nga bëgg a wax ne ay rumeur la <laughs> léegi lañ jóge ci biir place bi <laughs> nit ñi ñëw ñu ne ah amul lu ñu lekk ñu ne gars yi yaa ah, caag ni fii dara desu fi soow dara desu fi ñun dañuy am problème mhm. stock bi fan kon yamu leen ci soow mi da ngay da ngay defee ne caagri caagri bi moom moo daqati. mais ba du nekk ay cere yu forox yi quand même amul fenn nee naa la gis nga bu naturel bi xam nga dañoo jàng d'abord cere xam nuñ koy am jatu cere boo xamante ne spécialement ñoo ko yor suñ bopp gis buñ ko jëlee même couscous marocain bi dañ koo changé def ko à la xam nga mu nekk consommé local. ñu jël ko defaral ko suñu bopp tayal ko suñu bopp ba mu moom monte ko defar ko ba képp koo xam ne ñam na ko xam nga lan moo tax mu neexati. Hmm. képp koo xamante ne defar nga place rek boo bëggee mu jar il faut nga yokk ca neex soo ba. Hmm. te alors que loolu ñooy première personne. yoo xamante ko fa bind ku ni soow xam ne hmm. que ñëpp xam na ni màggal yi ak ceet yi. en général fi daje. Euh, léeg-léeg nga gis xew ñu naan soo ñëpp gis biir yaa ngi daw wala ñu ngi métti Euh, ñi leen di hmm. euh, oto baa ngi taxaw fii ci ci buntu kii bi léegi bu fekkee sawar naa mun naa wàcc léegi indil euh, médical yi nga xamante nii ku si nekk moom ngay yor avant ngay dugg si service mooy njëkk ñëw saytu la saytu sa liggéey ba pare mu xool ne war nga mën a jaay soow ba pare mu bindal la kayit bu la bindal la kayit am na looy fay si kayit boobu noonu kayit bi moom ngay jël yóbbu ko euh, hôpital hôpital saytu sa yaram bu la hôpital xoolee ba pare bu fekkente ni danga am feebar ñoom ñoo lay jël faj la ba nga wér ñoom hôpital du la fay benn dërëm ndax Cheikh Mm, social si dañ def social jour bala ngaa wàcc dina am ay kayitu ordonnance yu ñëw sa place yoo xam ne dañ naan lii dañ ko bëgg ku ci dimbale. ok léegi mëwët yi nekk ci seen kanam. léegi comme li mu laajte aussi ci côté social bi dañoo am suñu benn kii boo xamante pourcentage spécialement dañ ko gérer pour le social c'est que nag nit ñi niñ koy laajee mooy le problème. Hmm, parce que nit ñi au lieu que. ñu dem directement adressé wu ci entreprise bi mais dañu adressé wu directement ci la personne Cheikh Sow hmm. alors que Cheikh Sow il n'est pas l'entreprise xam nga lan moo ko sonal hmm. xol bi mënu rejeté loolu mooy sama problème du rejeté kenn mooy lan boo ñëwee nga wax ko hmm. day cop copé li mu yore mu jox la ko ak nu mu toll mu bala nga dem social bi dañuy taxawaat foofu ñu ne gars yi nañuy jéem a jaar ci fi ñu war a jaar innovation yi ci yokkute geeg ci wàllu entreprise bi nangam nangam yéen mëbët ngeen am boo ñëwoon tey démb ci entreprise bi nga dugg fa fa jënd fa nga ñëw fa tey wala tey ci ngoon nga ñëwoon fa bu subaa boo ñëwee di nga gis changement ñu noonu la ñuy doxalee avec l'innovation saa yu ñu xëyee rek jàppal ne ñu ngi jéem a testé soow bi di jéem a génne yeneen formation yoo xamante ne moom lañ bëgg a wayalee pour maanaam chaque jour satisfaire suñu clientèle est-ce que Cheikh Sow mi ngi wéy di jël ba léegi wala ci loolu ay critères parce que suñu critère de sélection dinañ jël nit ki d'abord pour dimbali la population de Touba parce que duñ ne sax Touba mais la région de Diourbel ndax fépp foo xam ne samp nañ fa suñu place waa dëkk bi d'abord la def voilà ñoom bu ñu ñëwee ba pare ñu booleeg ñoom ku leen jàppale ci doon merci le directeur <laughs> technique <laughs> marketing bu entreprise Neex Sow ñu ngi koy bu baax

suñ fan la woon boobu sama papa weñ da ko sonaloon foofu ay weñ dina ko sonaloon kii la woon quoi nawet la woon weñ sonal ko foofu lool léegi nag euh, après benn kilifa ñëw foofu moom mu fa ñëwee ñu ne ko mhm. ah, ñun ko weñ yi dañoo sonal mu ne ah sëñ Omar weñ di laa sonal am ah, foofu benn kaas mu la ba Omar jox ko benn kaas mu def si ndox mu ñaan juste bi boobu lañ fa gëj a gis weñ si biir place bi noonu ba léegi weñ nag mun na am ci feneen si mais côté boobu moom fi ñu ko defoon noonu ba léegi nii ba léegi

yo xamné machallah macha allah euh, gërëm leen bu baax gërëm wa restaurant Eldasi, bi nga xamné kat ñom ñoo ñu euh, may opportunité ngir ñu mëna euh, présenter fi émission bi kon nak képp ko xamné rek bëgg na ay bagage yu baax na doxantu <laughs> ci restaurant bi di leen gërëm bu baax merci beaucoup kon. Euh, beneen yoon incha allah ci beneen invité wéy leen di ànd ak programme mu senevision point waa dëkk bi yëpp tàggoo nañu coono fan la ñuy jëlee soow mu baax ndax Cheikh Sow indi na solution bi. Cheikh Sow ñëpp naan ko neex soow Touba gi yëpp ak li ko wër moom la ñuy wër Cheikh Sow neex soow soowam baax na set na te neex na boo amee xew soxla ci soow ak lu mu bëri bëri boo ci soxla boo ñëwee ñu jaay la. La crédibilité, notre credo. Senevision.com, World Senevision.com, Kumpa, Tagonagien.